ñi daan wër di doxaan toog nañu seen kanamu jabar yi lenn daal laa leen xamal mooy ku si ne na nga toog sa aawo ta bàyyi ñaareel yi fële waa ñaareel yi bala ñu ñëw indil mosiba na ñaareel li aawo yi daal fi mu ne nii ñoo aak beneen bi si toll nag macha allah li Macky Sall jël moom yàlla na jëm kanam bu 6 heures jotee ñëpp jënd li ñuy jënd dem fatu ji waaye doxaan gi lan war a baax doxaan gi rek indi na problème ci dëkk bi fi toll ko am njaboot sa fi dootul dal te ñoo ngi ci marché bi di liggéey xale yu góor nekk suñu kër yi doxaan guddi doxaan ba cëkk doxaan gi la ñuy ba nan toog bàyyi doxaan gi. ah temps yi moom coole nañ moom waaw ah, temps yi moom ñoom coole lañ parce que kenn du dem juge tamit sa kër naan yaa ngi dem di doxaani ci waaw. ñun ñi tamit ñu ci bëri seen i jëkkër toog nañ ñu daan dem di doxaan yi ñëpp seen i jëkkër toog nañ <laughs> ah man moom sama bos du doxaan mais toog na ndax xam naa ni sept heures rek mu wàcc mbaa quatre heures <laughs> daawul génn guddi gi nag daawul génn guddi gi ndax bu wàccee rek moom dugg na ci kër gi ah, baax na ci quand comme que les maris restent à la maison na Macky prolongé couvre-feu na ko prolongé ñuy naanandoo attaaya ak jëkkër yi di seetaanandoo ak ñoom télé dina ci am solo. Euh, jigéen ñi nga xam ne dañuy nangu fàtte jëkkëru jàmbur yi léegi dafa mel ni gisatuñu kenn. gisatuñ kenn. instant bi moom waaru nañ ndax kenn génnatul. kon daal daa mel ni mbaraan mi doxatul. doxatul doxatul. comme mbaraankat yi ñëw di jënd ngir préparé wu ngir nangu jëkkëru jàmbur yi ndax léegi ñu gi ñu ngi ñëw ba tey. non ñooñu moom gisatuma leen. gisatoo leen non ah. lii ñu def nag a ah, jigéen ñu bare dinañ ci ak kontaan daal lii moom bu lii jeexee sax dañ ko war continuer rek ndax wax am sa njaboot ak sa soxna dend ak moom dara dàqu dara dàqu ko wax dëgg yàlla a ah, ni ma ko gisee daal xam naa ne xale yu jigéen moom daañu ci kontaan man nag. xale yu jigéen ñi moom ko comme niñ koy waxee ah. ah dina métti seen côté de parce que jigéen boo xam ne tamit tàmmaloo sa bopp liggéey nga yaakaar ni ci ci jëkkëru jàmbur yi tamit moom dina métti si yow su fekkee ñoo xamante ne sax dañuy liggéey gëm nañ seen bopp di daan seen doole ñooñ sax mun nañoo tamit tuuti mais ñu yaakaar yi moom moom si jëkkëru jàmbur yi moom gisuma leen de waaye yërub naa leen. couvre-feu bi waa moom vraiment am na ci lu muy baare ci ñun mais am na ci lu muy faj. li muy baaree ci ñun dem seeti sa am di jàmm boo amee sa benn show dem seeti ko ngeen toog waxtaan ngeen dund du dëgg parensaay mu ñëw seet si la mais nag am na ci lu mu faj quoi ndax li mu faj mooy yenn danger yi daan am ci dëkk bi sunu rakk yi xam ne ñun mënalu leen dara te dañ daan doxi tëju force ku ci daan nangu jëkkëru jàmbur di nga toog sa jëkkër toog gérer. am na côté boo xam ne baax na am na côté boo xam ne baaxul waaw parce que baax na parce que génnatuñu am na ñoo xam ne dañuy obligé teel a wàcc. pour mën a egg kër ga avant vingt heures. nga defee loolu gënul du du gënal jigéen ñi. ah kay gaa moo ñuy gënal ñun. <laughs> Ah, mbaraan bi xale yi mbaraan bi dégg naa sonn nañ temps yi. waaw sonn nañ temps yi kay. ndax gisuñu gis nga gisuñu kenn. nangu ko te jëkkër jàmbaay jëkkëri jàmbur ñu yem seeni jabar man sama jëkkër nekk sama wet. ma lonk ko xanaa li neex na ñëpp a ngi dajaloo déggoo bi mi ngi am macha allah daal waaye nag ñu ngi ñaan tamit li tamit jeex waaw ndax liggéey bi tamit temps yi dara doxatul waaw ñu ngi ñaan feebar bi balaa bi yàlla teggil ñu ko ñëpp delluwaat seen activité waaw noonu la demee barki alxuraan da nga daan gis ku ci am sa jabar ku ci da nga daan gis ku ci am sa jabar sax pour nga gis sa jëkkër problème lay doon di nga ñëw tëdd ba xaaju guddi muy doog a ñëw di la fëgg balaa doomam di ko gis xëy na dem mais lépp calmé wu na Macky Sall daal moom dañ koy ñaan waaye nag moom métti na ci ñun ñuy joxe dépasse vraiment.